rafetlu bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñëpp wuy si nañ ci woote bii nga xam ne woote nañ ko ndax woote ñu wuy si la yombul ah li nga xam ne nag moo waraloon woote bi mooy dañu den def tey orientation budgétaire bu année deux mille vingt et ndax yàlla dafa ñoo dafa dogal commune bi muy maire maire bi ci loi yi nga xam ne moom la réew mi tënk ak sarti réew mi dafa wax ne day bu année bi di jee di ñëw da ngay def orientation budgétaire da ngay boo paree nga monter budget bi techniciens yi ak monte ko dëppale ko ak li nga xam ne moom la askan wi soxla ci gox bi nga def nga def budget bi jëmale ko ci loolu jox conseil municipal bi teew sous-préfet de arrondissement Ndam teew ah, payeur départemental bi nga xam ne moo moo nekk trésor teew conseil municipal bi wote budget boobu ñu door ko commune bi door koo mën a jël di ko exécuter ci ni ñu tëggee budget bi loolu lañ doon préparer moo tax ñu defoon orientation budgétaire orientation bi nag charte yi dafa wax ne da ngay woo askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci commune bi déglu leen loolu obligato obligation la ci texte bi nga xam ne moo moo ñu teg ñu war a woote woote woote budget bi loolu moo tax ñu woote woon tey population Touba yi ak association yi ak chef de village yi ak groupement de femmes yi ak la association des enfants des jeunes yi ak secteur yëpp ñu woo leen toog wax leen programme bi déglu leen kenn par kenn ñu wax li nga xam ne mooy seen xalaat waaye wax li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg loolu nag la ñuy dajale jox ko techniciens yi boole ko ak li nga xam ne ay xalaat la ak obligation yoo xam ne commune bi da ko war a def c'est annuel maanaam boo mu mel ni salaire yi nga xam ñi nga xam ne dañuy liggéey ci commune yi seeni salaire ak charge fixe yi nga xam ne obligatoire la dañ koy def lu mel ni facture courant facture yi Senelec facture yi leneen ak éclairage public yi seen facture yi mu ak li ñuy wax charge fixe charge fixe mooy faire dépense lu mel ni dépense nga xam ne ay obligatoire la yoo xam ne dañ ko war a def loolu la ñuy jël mu nekk jiital ko teg ci li nga xam ne mooy li askan wi so soxla li nga xam ne ndigal la ci ñun ñu teg ko ci boole lépp tëgg ko def ko budget commune bi loolu mooy budget bi nga xam ne moom la ñuy fonctionner li tax nag mu am ay sart yoo xam ne ñun faw ñu def ko muy de lu mel ni njëkkee benn réunion publique bi nga xam ne moom lañ defoon ci Touba Njaareem ak orientation bi ak wote budget bi ak leneen yeneen yi nga xam ne ay rencontre la ak formation yoo xam ne dañ ko war a def dañoo yàlla dafa dogal ñu am ñu dugg ci pakaseen bi am ci cër bu am solo ci gannaaw bu ñu càmbaree ba jàpp ne Touba war nañ mën a am ci pakaseen bi ndax doxin wi ñuy dox leer na luñ leen jox danañ ko def fu leer waaye population bi fi nekk war nañ laaj neen ñu dimbale leen ko ñu dimbale commune bi commune bi mën a satisfaire seeni besoin loolu moo tax ñu ñu ñu obligation yooyu ñu di ko defee ni nga xam ne moom lañ ñu ko sante ndax bi ñuy dimbale kat dañuy dimbale waaye dañoo teg seeni sart yoo xam ne képp koo xam ne bëgg nga ci ndimbal ci ngay dox teg sart yoo xam ne boo ci amee noonu ngay doxee yàlla nag dimbale nañu sart yiñ tegoon nekku ku ci bëgg ci ngay dox dox nañ ci ba bokk ci biir waaye mu des nag ndimbal li buy ñëw sart yi nga xam ne moom lañ ñu tegal pour ñu dox ci loolu ngir ndimbal li mën a gën a dolliku loolu moo tax ci ñu woote woon tey mbooloo mépp teew nañ déglu nañ ñëpp defe naa ne képp ku fi toow yaakaar naa ne gis nga ni situation bi demee dégg nga fi kàddu gu nekk jib na fi ca kàddu euh, euh, doléance bu nekk jib na fi question bu nekk jib na fi waaye li ci ëpp solo rek li ma leen waxoon dañoo suñ borom dañoo natoo conseil municipal bi nekk ci kanam nit ñi bureau municipal bi nekk ci kanam nit ñi man nekk ci bopp conseil municipal bi suñuy questionné suñ ma laajee kuñ ku jiitu buñ la laajee da ngaa war a xam te boo xamee da ngaa war a tontu lu leer loolu moo tax lu mu yàgg-yàgg lu mu bari bari question yi lu mu métti métti lu mu naqari naqari danaa résister déglu ko bu baax a baax tontu kiy laaj loo xam ne bu ma ko ko tontoo dana dugg boppam parce que naa si muxtalifoon ne nit ñi yemuñu te kenn ku ci nekk fi sa ak sam xel ak sa xam-xam foofu ngay laaje te nit boo bëggee mu xam fi mu la laaje foofu nga koy tontoo te fexe ba langue la laaj nga tontu ko ca lu mën a dugg boppam loolu nag la moo taxoon rek ñu concentré wu ci nit ñi kenn ku ci nekk li nga laaj ñu fexe ba buñ tontu la ci loo xam ne boo fi jógee doo ah man de damaa laajoon waaye lii ma laaj leerul wala liñ ma laaj liñ ma tontu comprendre ru ma loolu moo yàggaloon débat bi ndax tàmbali nañ depuis ca 10 heures 30 ba yaakaar naa ne léegi 19 euh, heures jot na.